monsieur bu ko fa mais. jërëjëf sëriñ Ba mais namm naa la. maaro mi ko mais ça fait sept mois huit mois teguma la bët. waaw damaa laqatu maa ngi si jaww bi rek. mais da ngaa tekki ngeen ko naka. non tekkeeguma ngeen bu dee. maa ngi leen di mais du tax ñetti at yi di bëre woon. non mais booy ñooy daw rek. booy ñooy daw rek. booy ñooy daw xaalis bi fi la ko jox. ah dañuy bàyyi mu ñëw seen dee ñu ñu la ma booy bañ na. mais am na kenn koo xam ne daw la de. kala bàcc seeraas ah combat rek lay wër. làmb ji fi laa bëgg a dégg. làmb fi amoon daaw. Ah. loolu loolu est-ce mën naa ne. avance wàcc ñëwee. est-ce mën naa nga jënd si ay pigeon. non du ma jënd pigeon. looy jënd laxam laa ko jëndee. barki Serigne Bamba mais mën naa ne. ah damay laajte ndax xel. waaw ko fanaanoo di ko yeewoo te amul. mais wàcc seeraas combat la bëgg. waaw mais ko Tafa Gueye nee na. làmb ji amul daaw Ah. nañ ko leeral wala ñu seetali ko. wa waxal ak moom. bàcc nañ ko seetali. eh. Ah. ragalul loolu bii nañ ko seetali. Ah. wala ñu leeral ko. dëgg la lamb nag ah lamb la. dëgg la. loolooy lamb. loolu mooy lamb bi. boo di fore. mais xam nga man dina naa man kenn gisul woon loolu. non yow xam nga yow da nga yàgg ci lamb. dëgg la lamb da nga ko dox. waaw di dox toog moom. waaw di dox toog moom. waaw waaye sa seen bopp. waaw mais xam naa ne yow li nga wax ci lamb gars yi dañ koy fàtte. mais est ce que xam nga ne léeg-léeg scientifique la woon te bii suuf lay nekk. non day toog. day toog day daal. palaafos palaafos suul la. je xam na je bàcc moo la gën a xam ne lee fi suuf la. synthétique sax la woon synthétique la woon waaye du feeñ mais bii. laaj laa da ngay toog. dat ba nga toog ma dem booy jóg mu tax. te day dugg Je moet day moom day ñëw Je day ñëw day xees. seen combat dafa neex. ba xeexal bàcc delloo bi. Wow. waaw ah ñu ko ñemee bariwul. bëri naa ko xam nga loolu loolu yàgg la amateur waaw ñaan na ko yàlla yërëm tax ma ko jotee si ba muy gaañ mu fekk mbuur mu ma fekk euh, gàbbi dimanche mais yàlla ko yàlla xare ajjana tax ma ko jotee fu daw yu bëri moo ko tëgg dinaa dem këram seeti ay doomam wax leen ne na ma ko baba tay waaye yàlla suuf sedd si kawam te suñu borom ko jotee fu daw si ñu fi bàyyi nag ñëpp ñuy ci xam na sëñ Modou doxal na làmb fi mu ko defal ah. ñëpp moo ñu génnee kon yàlla na ko yàlla xare àjjana tabal ko jënd fi daw si mais Sénégal mais xam nga maa ngi am Sénégal ah. mais xam nga loo métti man dama def trois fois champion d'Afrique battu la ma la ma ah. Atanas Assane Bamboulale Bala Aruna à Burkina Faso ba tey kenn recevoir ma président kenn may recevoir man ah ba Tamba à Tamba à Tambacounda loolu dafa war a leer jël Jordan daan ko Tambacounda daan ko Tambacounda ñëw fii Ama Baldé daan ma ma jël arme daan ko. daan ko jàngal ko. waaw bëri. allahu dafa neex. ay waxtu rek ñu ne si bëri. Ah, ah, ah. kon léegi dama bëgg yow waa ma jot. nga doxantu ba écrit mbay géey. waaw foofu la lépp wule ñaay. te yow yow xamoon yow sa lamb dafa am wuure. wuure la wuure. wuure bi dafa baax ci lamb. waaw ndax su ma jegee daam. waaw. nga fay ma ak kii. Ah. ma dugal nga dugal. Ah. ma ji ma ma rey ñett. Ah, te yow tuur rek ngay wër. de ñaar damay rey ñaar. damay rey ñaar li mënoo wax man parce que man may doon ma song benn. ñaar laay song doo. te booy bolo tuur ngay jël xam naa. tuur laa jël sama tur la dama ko wuyoo rek. dama ko wuyoo rek. noo gisee làmb nag mu ngi dox. làmb euh, mi ngi bëgg a yàqu. mi ngi bëgg a ma bëri jargandu. léegi fecc yi la ak supporters la gars di gën a tëgg. ak mbër ndaanaan waaw mais mbër dëgg. waaw ah gis nga ko de. ñu jël tànk mbër. mu jargatu bañ nga fekke ko. da wër ko ndoom mu rëcc di bëre ak yow. nga jëlaat tànk mu bañ. nga daw kor ko ca kaw bëre ak moom jaar ca mu rëcc. ah bëree gis ko benn action lay doon jeex. <laughs> mais gis naa fi ay ñetti action ci bëre. suñu jamono te doo daanu. dëgg la Ada Fass seen na ko yàlla defal jàmm. waaw te musal ko si xale la. na ñëpp xam ne xale la ñun bañ nekkee Béladiane di bëri moom mi ngi ak doomu Serigne Ndiaye bi nekk xale di foto di foofu ci xale yi kon defagu dara ci làmb gars yi nañ ko bañ a yàq jàppale ko xale bu am jom a ngi noonu te mbër la daanu nag du tee nga bañ lekk mbër dégg nga de daanu du tee nga bañ lekk mbër gis naa fi mbër bu daanu ba dégg daay li. Ah, ah. ma xam ne kooku champion la. jërëjëf moom yaa ngi ko yàlla defal jàmm champion.